bul jël sa benn 5000 francs di ko jox sëriñ ñaan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi nelaw gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn pee soqi soo de saaf saaqami seen sikrote ak piqué sëriñ naan ko sama jëkkër da lay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ki ci yonent bi jël ñett ki ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi nelaw gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es benn pee suqi soo saaf saaqami seen sikrote ak piqué <laughs> dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn pee suqi soo de saaf saaqam seen sikroot ak piqué may ne ko màggale jël sa benn 5000 francs di ko jox sëriñ naan ko sama jëkkër da lay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci bi jël ñett ji ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es benn pee suqi soo saaf saqami seen sikrote ak piqué 5000 francs di ko jox sëriñ naan ko sama jëkkër da nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel tëdd néewi law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es benn pee suqi soo saaf saqami seen sikrote ak piqué <laughs> sëriñ naan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi nelaw gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn pee suqi soo de saaf saqam seen sikroot ak piqué sa benn 5000 francs di ko jox sëriñ naan sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es benn pee soqi soo saaf saqami seen sikrote ak piqué 2000 francs di ko jox sëriñ naan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagaan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn soqi soo saaf sàqami seen sikroot ak piqué benn 5000 francs di ko jox sëriñ naan sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagaan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es benn pee soqi soo saaf sàqami seen sikroot ak piqué sëriñ naan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sangu sobe te dagaan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn soo de saaf sàqami seen sikroot ak piqué benn 5000 francs a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci yonent bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagaan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn pee soqi saaf sàqami seen sikroot ak piqué

1000 francs di ko jox sëriñ naan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci bi jël ñett ji ko ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sang sobe te dagaan naa lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn soqi soo saaf sàqami seen sikroot ak piqué <laughs> sëriñ naan ko sama jëkkër dalay nax ginaar a gën a gaaw ndax ginaar daa jël ñett ji ko ci bi jël ñett ji ci iblis ginaar daa jël ci yonent bi teel a tëdd néewi ne law gàttandu waxtu jël ci iblis lekk sobe fanaan sobe sangu sobe te dagan lekk moo tax ginaar am juróom benn es ak benn pee soqi saaf sàqami seen sikroot ak piqué